sang bi Mbàkke ñoo ngi lay nuyu di la ziyaare bu baax di nuyu mbooleem taalibe yi fi nekk waaye di la wax nga jottali ñu suñu nuyoo ci sang bu tedd boobu Cheikh euh, Al Muntaxa Bachiru Mbàkke di kontaan lool nag ci ñëw gi ñu fi ñëw waaye it fekk gi ñuy la fi fekk di rafetlu sa taxawaay bu baax Mbàkke euh, di la saw coono ndax ñu ngi dëgmal màggal gi te ku ne xam na taxawaay bi nga ci am Sénégal yëpp umpale wuñ ko yaa ngi defal sëñ Tuubaa liggéey bu am solo boo xam ne yàlla na ko suñ borom fay waaye yàlla na ko sëñ Tuubaa fay euh, taalib yëpp amee nañ leen jukkal wax dëgg yàlla suñu yoon bi nag yoonu ziyaare la waaye yoonu ñëw it indi suñu contribution ci màggal gi suñu modeste contribution ndax it ay doomu daara lañu waaye dañoo fas yéene yëngatu ci réew mi yëngatu ci politique Euh, déclarer candidature ci présidentielle yi di ñëw incha allah fas yéene it taxawal fa doomu daara yi ndax ay doomu daara lañu fas yéene taxawal lislaam taxawal doomu daara ci langue politique gi te def ko ci na ko sang bu teer bi daan defee sallallahu alayhi wa sallam waaye it def ko ni ko Serigne Touba Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu daan defee ak it ni ko sang bi Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké bëggee ak mboolem ñu ñooñu lislaam ñooñu nag ñu ñëw indi la suñu ziyaare euh, sàkkuwaale ci yow ñaan ak it say ndigal ak say xalaat ak sa ndimbal lépp soxla nañ ko Mbàkke loolu daal moo doon tànk yi ngir bañ a guddal ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm di rafet lu baax taxawaay bi Mbàkke delloo am nuyoo bu baax Serigne Aliou Lo ak délégation bi nga àndal bàyyi ko ca Saloum di sàkku jëm ci biiru réew mi ñu lay nuyu bu baax di bég bu baax ca tànk yi nga xam ne ñëw ngeen fii ngir nemmiku ci dëkku Sëriñ Tuubaa bi ak ànd ak ñun ci màggal gi ndax màggal gi moom bisu Sëriñ Tuubaa la boo xam ne daa waxoon ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég bu agsee nag ma ci sant la yàlla kon nag bu yàlla defee ngay ñëw ànd ko ñun loolu yëg nañ ko tërëy ci ñun bu baax kon ñu ngi koy rafet du leen sant bu baax di leen gërëm di fas kóllëre gi ci diggante bi incha allah ndax xëy na tey lañ njëkk gisante li ci des it mooy li nga wax ci. ne dangaa bokk ci ñi sàkku réew mi loolu moom ku ne sañ na ko ku yàlla jox boole ci réew mi te jox la xam-xam bi sañ nga ko sàkku ndax ñëpp a ci am ku ne am nga sañ-sañ yu def ko nguur nag carte yi moom ay sabab rek la ci waaye li ci am solo rek mooy yàlla suñ borom moom mooy joxe nguur ni mu ko waxee ci alxuraan allahumma malikal mulki tuuti mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u wa tuizzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika al xayr innaka ala kulli shay'in qadir kon nag bu yàlla defee politique moom nit ñi dañ ko yàq waaye doon lu bon ni nit ñi doxale nag moo tax ñëpp si politique ba képp kuñ gis nga dugg ci rek ñoom bët bu la xoole kon nag yéen ñi nga xam ne ci nekk te nekk ay bi daara yéen itam am ngeen ci responsabilité kon responsabilité bi mooy wane aw yoon wane yoon wi nit ñi war a jaar bu ngeen ko defee rek ñëpp roy leen ci wala ku leen ci roo itam boobaa yéen ngeen wàcc kon loolu moom ñu ngi koy rafetlu bu baax te doomu aada yi moom ñooy njabootu suñ borom ki gënal yàlla ci ñoom nag mooy ki gën a sonn ci ñoom gën leen a jariñ kon ku jub te li nga jublu jubloo ci dara lu may bëgg a xeet li nit ñi ak bëgg leen a dimbale loolu tawféex lay doon kon ñu ngi la ci sant bu baax di ci gërëm di la ñaan